deuxième combat de la soirée ngi noonu ñoo ngi fii ci arène nationale ci diggante Franc 2 bu Médine ak Valdo abi bi sifflé na mbokk yi Franc Valdo ngeen jaakaar loolu noonu muy dox di jëm ci ñun Franc moo ñëwoon ginnaaw Franc à gauche Valdo à droite deuxième combat de la soirée ñoo ngi fii ci arène nationale làmb xale yi ci daan xam da daan gaaw mbokk yi xale yaa ngi noonu Franc teg ne pied droit Valdo jàkkaarloo ñu teg pied droit combat bu naa neex ak ñu Valdo dóor na léegi waaye dalul Valdo dóor na Valdo dóor na léegi dugg na Valdo Franc ñoo xeex ñoo ngi xeex Valdo Franc Valdo na jël ko Valdo jël na Franc waay xale yi dañoo ñëwante Valdo Franc Valdo moo ñëwoon ginnaaw Franc lañ jàkkaar lool Valdo Franc Valdo Franc Valdo moo ñëwoon ginnaaw mbokk yi Franc lañ jàkkaar lool xale yaa ngi jàppante Valdo Franc Valdo Franc ñoo ngi jàppante mbokk yi Franc moo moo moo nekk à droite Valdo moo nekk à gauche ñoo ngi jàppante Franc moo ngi roko ci suuf waaye dalul Valdo mii bu pexeem jubee làmb <laughs> du yàgg baa du siggeeg moom Valdo Franc waxal waaw mu mel ne làmb ba léegi ñu nga ca de Franc mu mel ni Valdo ni Valdo mu jàppee dafa baax trop bu continuer mun naa mu am dara. comme que yaa ma jiitu ci affaire yi nga dawal. déedéet dawal <laughs> ñoo ngi jàppante mbokk yi. Valdo Franc. Franc moo ngi rokk suuf. Franc ngi dóor. Valdo Franc. Franc koy xëcc ci bi Valdo nga ci bi géew bi Valdo Franc. Valdo moo waaw Valdo moo gën a jekku boo xoolee moom ñaari loxoom yëpp jàpp na. Valdo nga koy xëcc. waaye ni ma gise stade bi defe naa ni buñ ñu fa andee Modou Lo Ama Baldé Franc lay lay la xale yi <laughs> dafa daw jël tànk bi Franc teq ko laay dafa jël jël tànk bi Franc teq ko ñu daw génn abid waat na leen ci digg géew bi Franc Franc Valdo ñoo ngi xeex Franc Valdo daw nañ jàppante Franc Valdo Valdo moo ngi cokkaat ci suuf wala rokko ci suuf Franc Valdo Franc am na ñaari loxo ci ngemb ku nekk nga dugal yu sew ci suuf Valdo Franc moo ñu wan ginnaaw Valdo lañ jàkkaar lool jàppante waaye xale yi dafa mel dañoo xaw tolloo doole moo tax combat bi mënul yomb deuxième combat de la soirée premier combat bi Songane moo daan caatu Franc Valdo dina la doo tànk dina la doo tànk baatu la war ndomba Franc Franc Valdo Valdo jël amagul Franc Valdo Valdo war na ko Franc war na ndomb Valdo Badou la yëkkati Valdo Franc Badou la yëkkati yëkkati na ko ba ci kaw oh daan na ko daan na ko bàyyi abir arrêté na Franc daan na Valdo Franc daan na Valdo Franc daan na Valdo xale yi dañoo mën a bëre Franc daan na Valdo. waa nuyu naa waaw maa lay delloo ziar yaa ngeen yaa ngi am jàmm waaw sant yàlla wér a wér a wér ñu dégg na maak moo jayee mu ne combat boo xamante ne amateur dañ ko bëggoon promoteur bëgg ko ñu yàgg ko dox ci kan la yàggee woon waaw combat bi yàggewul fenn yàggewul si ma yàggewul si moo jë parce que man damaa génnoon damaa voyagé woon promoteur bi woo ma ma ne ko wax dara fekk ñëwuma Dakar après ma ñëw Dakar si suuf bi laa ko confirmé ñëw combat war na a taxaw parce que ñun ay jeunes lañ lamb lañ fi moo jë moo jë waruma tàmm waruma tàmm beneen mbër bon nag bu ñu toogee di xaar bëréewuñu mooy suñu liggéey te li ngay yóbbu sa kër kenn du loo ko jox xam nga moo tax ñu sëg ñu sëgg bëre fañee si am ndam dal ko ñu sëgg mais làmb la sama man sama naataango la naataangoom la moo tax ñu sëgg bëre jël ndam jël combat bi foo demoon waaw man fi ma demoon dama gënoon dëkk bi tuuti rek xam nga xawoon changé xawoon changé idée xam nga mais teew nag Afrique la woon quoi waaw mais maa ngi siy sant yàlla bu baax da nga demoon noos wala da nga demoon entraîné noos fekk amaguñu li ñu bëgg si làmb mënaguñu noos. xam nga ama di profité di sant sama mbokku séeréer yi. nuno foxle séeréer men simnanum gonum fay simangol miccat on dokonuno ɓinu tena simna nun a leyanunga jeg combat le 13 avril a ndeerum fo moƴja ne nu ñaantene nu mbaat ñaan ko yàlla ceeni ndam di sant waa Wassare Lamb bu baax a baax leene xam fi ngeen bëgg jëm yàlla yóbbu leen fa si kattan mo di woo supporter nekk ñëpp di wax ñëpp waajal xam di wax sama supporter yi fii dafa bii dafa tàng lu leer Wassare Lamb ni laa bëgg a seet suba noo ko gisee. waaw incha allah amul problème incha allah incha allah man man amul benn problème boobu. kontaan nañ Siteu bu waalo moo nekk à gauche urgence à droite Siteu bu waalo na léegi Siteu bu waalo daw na jël urgence waa Siteu lu muy def nii lu muy def nii Siteu bu waalo daw na jël urgence Siteu bu waalo moo ngem moo ngemul verte li urgence moo ngem moo ngemul xale lii xaw ma vax la xaw ma Siteu bu waalo fàq na ko waaye dafa bañ Siteu bu waalo koy zongale ah Siteu ba urgence du di si yow. bu waalo urgence. Siteu bu waalo urgence. urgence da nga koy zongale ba da koy kal kalu biir bu waalo urgence. urgence ba da ko urgence li nga def urgence Siteu bu waalo. urgence mbokk yi moo ñu ginnaaw. urgence Siteu bu waalo urgence Siteu bu waalo urgence Fils de Balla Urgence waa lu am abit bi Siteu bu Waalo daan na Urgence Siteu bu Waalo 2 Giga moo nekk noonu 2 Giga ongo waaw 2 <laughs> Giga waaw lii lan la <laughs> làmb gi noonu waaw 2 Giga lu muy def nii laay nee na ngeen déglu ko 2 Giga ongo dalal ma 2 Giga jëlal ma deux Giga la léegi neex na de ay deux Giga jël ko ay deux Giga Deux Giga laay Deux Giga <laughs> wa ngoog abit baa ngi wax ak ñoom abit sëlfe na caatu Poyol ak Boy Morlan ñoom ñaar ñëpp ngeen muy xonk la ngemboo caatu Poyol mooy dox jëm ci kaw moo féete à gauche Boy Morlan à ñoo ngi lewaatoo caatu Poyol Boy Morlan <laughs> Caatu Poel mbooloo mu fi andi tey laay ndaw laa neex Caatu Poel Boy Morlan ñoo ngi fixante taxaw di lewaatoo ñoo ngi lewaatoo Caatu Poel ngi tekk di ko xool Boy Morlan moo ngi moo ngi ay braam ñoo ngi lewaatoo Caatu Poel Boy Morlan Boy Morlan Caatu ndaw laa neex. caat poyol mii ni ma ko gisee <laughs> ba mu sotti ba mu sotti ay cokaas na ko léegi mooy mboobu booy Morlan caat poyol a ngi ne tekk rek topp ko waaw caat poyol dafa andi public tey mbooloo mu bari la fi andi mbooloo mi ko topp tey heure <laughs> waru ko de caat poyol topp na ko dox na ci kaw booy Morlan jël na tànk ba booy Morlan jël na tànk caat poyol laa jàppante nañu xale yi dañoo mën a bëre ñoo ngi jàppante Thiatou Peulh Boy Morlan Thiatou Peulh moo ñu moo féete laay Thiatou Peulh Boy Morlan ñoo ngi jàppante Thiatou Peulh mbot na ko laa léeg-léeg laa Thiatou moom Thiatou Peulh la noonu xool ko mbooloo mi xale mën a ndànk sama yaay dafa sonn ga leen looloy bi bu def nii bu def nii sigil sigil la sigil sigil ngeen li ngeen ndax damaa bëri daan mu ma teel ma supporter bu ñu dem ñii nag mënu ma daan téye dañ dagg seen digg rek ñëw wax maa ngi koy sant di ko gërëm ndax moom ñu ko tëggal moo tax nga déglu waa ko sori nga yàlla xam na ni bu ma mën ak man kese dama koy attaqué jàpp ko bëri ak moom lu topp sama ginnaaw moo bëri loolu tax nii rek laa mënoon a demee. mais na ko sori nga yàlla xam na ni sant yàlla rek. foo jëm sa kanam raw bët. na booy waajal nag. xale ndaw laa bi ma seen premier combat damay sant yàlla. di sant waa Grand Médine ñëpp. ki xalal la barki leeru Alxuraan. nan la fa demee. yàlla leen yaa dafa jàmm yéen ñëpp. xalalaa damay jàngal rek. tey gis nga ñii ànd naa ak samay mbokk ànd ak samay xarit ànd ak samay dëkkandoo ànd ak samay am di jàmm. ma di sant di leen gërëm di leen xamal ni nit rek ay garabam waaye Mbaye Yékini production. Uh-huh. mention spéciale maa ngi koy ñaanal suñu borom guddal fanam ci barkeelu ci. dama kontaan trop drapeau bi daal yàlla na doon ay drapeau yu drapeau te Mbaye Yékini yàlla na doon promoteur boo xamante ne àdduna gépp nañ ko dégg ndax daf maa sagal barki Serigne Touba kontaan naa trop sama xol sedd na waaye nag may remercier bu baax Issakha Diop monsieur le maire ah. ah kenn du moom monsieur le maire Abdoulaye Diop monsieur le maire ah Pape Ndiambe Dieng ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen jaare di leen bëgge di leen xamal ne am naa mbégte ak kontaan Baye Balla ñu nuyu waat maa ngi leen di fay bés bi nekk na sa bés wala suñu bés loolu dëgg la xanaa tey ma am mbégte rek am mbégte am mbégte am contentement bu mag am mbégte moo xam ne am na tàmbali waaye amul yamu waaye waaye nag may remercier bu baax a baax a baax Mbaye Yékini production Mbaye Yékini gis nga tey ji li nekk sama ginnaaw lépp tey samay samay xarit samay am di jàmm samay dëkkandoo ñëpp a ma wuy si. ñu sax lañu woon presse bi ñëpp dañ ñëpp a ma wuy si may sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal bu baax Mbaye Yékini Mbaye Yékini nit ku baax la Mbaye Yékini nit ku gore la Mbaye Yékini nit ku am kóllëre la yal na ko yàlla defal jàmm defal ko tawféex ci barkante waaye nag may sant bu baax Asbekaay Mbaye di sant bu baax Mamadou mbay borom Bantamba. kooku sama rakk la sama xarit la ndax tey bu ma duggee ci presse yàlla ak jëmmam moo tax. kenn du moom ñoo ngi lay bàyyi nga yegg ci kaw ñoo la fay fekk. waaw fekk leen ma ci kaw rek ñu waxtaan. baax na ma ci kaw. Youssou Ndour daa daw Kaaw nuyu naa waaye maa ngi lay fay waaw. yaa ci jàmm. oui maa ngi si jàmm baax a baax. yaram bi ba bi féex na bu baax a baax a baax a baax waaw. gaa gëj nañ laa gis. waa gars yi gëj nañ ma gis mais xam nga dama newoon ci ay tawat quoi xam nga wérgu yaram moom ci la lépp xaj gaayen xam nga yaa ma ko xam moo tax ma raar si làmb ji mais tey daa sam booy boo xam ne mooy bëre muy Kaaw Gourdin waaw moom la ñu indi woon quoi di ñaan yàlla yàlla may ko ndam bu seddu guy. nu ngeen ko andee tey. tey niñ ko indee comme niñ ko daan indee rek moom du gan si làmb mun na bëre mun na xeex toj na mbapat tamit te loolu moo si gën a am solo daa bëre mbapat ba oos balaa gars yi di ko xam arbitre bi sifflé tey jii. muy bëre xale bu mën a bëre muy 2 Giga. waaw nga xam ngeen ko. xam nañ 2 Giga 2 Giga booy bi moo ko débuté booy bi moo 2 Giga rek du mot une minute. une minute non du mot une minute booy bi ñu mu bëreel mbapat ba léegi ñoo ñooy toj lamb ji ñoo nekk ci kaw. te ñoom kan ku si mel ni ay zilo ñoom ñëpp da leen tër booy bi dafa jël ay nag ba tooyal bii mooy douzième combat am te kii nii bëreegul sax six combat yi mat xam nga rek lamb moo tëradi quoi moo tax ñu bëri mais bu loon loolu heure bi booy moog ñeen ñi la ñuy wax. ñu gis yow foo toll. waaw man maa ngi si wàccaay maa ngi si préparation bi nag quoi waaw. kon na yi mën nañoo xaar Kaaw Cissé. nañu xaar Kaaw si saison bii nii ma ñëwaat def comme d'habitude rek nu ma doon def mais maa ngi bëggee waat Dalifor yëpp wasaare lamb na affaire bi fii la man dam fa abonné ah. lu dugg rek day ñëw direct. kontaan wasaare kontaan waaw yow xam nga ma xam. yu am États-Unis yu am France Sénégal yëpp dara du ma raw. kon yow naa yàgg na wasaare kay jeexal na wax. kontaan nañ abit baa ngi wax ak ñoom Kelle Manso Grand Médine Ronaldinho Songane Gueye Kelle Manso mbokk yi moo ñëwoon ginnaaw Ronaldinho moom lañ jàkkaar lool moom moo nekk Songane Gueye yaakaar naa moo nekk Tëngéej bas ni Kelle Manso moo nekk di ki dépassé abit bi sifle na Kelle Manso Clémenceau moo ñu wan ginnaaw Ronaldinho lañ jàkkaar lool Clémenceau daw na jël Ronaldinho jël na tànk Clémenceau Ronaldinho Ronaldinho Ronaldinho Clémenceau mbot na ko bañ na Clémenceau Ronaldinho Clémenceau lu muy def nii laay Clémenceau Ronaldinho xale yaa ngi bëre Clémenceau Ronaldinho waaw Clémenceau Ronaldinho dafa mën a laay xale ya Clémenceau Ronaldinho lii lan la lii war na ko war na yéene na ko ba ci moom kay Ronaldinho daan na Clémenceau ah bëre bëgguma ci lii laay xale yaa ngoog xale yaa ngoog Clémenceau ko jël bu rëy Ronaldinho daan na Clémenceau jël bu rëy ay xale yaa ngoog. Petit Niang. moroom deux Giga. Andy du moroom deux Giga. kon kii du ñiit ma seen maas tolof tolof mënut a ñàkk si doomu de dama seen nekkoon te wàcce naa xam nga laa war a bëri seen. ndongoloo Lo ñooñu la ñooñu ñooy sama naaj tàngoo Thiély ñooñu laa war a bëre mais du booy yi. wala ci double moteur. bu ko bañee. waaw. mais bi nga man damaa mën a bëri loolu ñu fa ne aw ma doole ma wuti doole te boo amee doole loo bëgg da nga koy ñime gaynde lan moo tax neexut a ñime. lan moo tax neexut a ñeme gaynde lan moo tax ñu naan doomu ñëwee doo ko ñaanal rek ñaanal ko gudd fan lan moo tax. waaw kon jéem na xam-xam bi nee nañ mu ngi fi wuti doole. Ronaldinho fu mu jëm wax naa la ko naa la daam seen fi ndongoloo ngi fi gaynde ko fanaanoo mer rek naqaree lijjanti. waaw di la nuyuwaat. ñu gis nga tuus léegi lu neex lu wàll dégg bi. non lii xam nga danoo dëkk parcel waa parcelle nekk suñu ginaa foog ñu leen di bëggal ndax danoo ànd ak ay nit loolu rek mais du dara waaw. gis nga bëre xale bu mën a bëree. muy Caatu Gourdin. non Ka Gourdin ñi ngi bëre ak moom mais ni igir sax xam-xam lañ nekk tey soo gisee igir nu mu mel nga xam ne tey dañu yob te yab bu ñu indi yàlla na yàlla suturaal ñu rek yàlla nañu yàlla may ndam bu neexee suñu borom yàlla nañu yàlla may ndam rek. yàlla ñaanal di la wax ba ci kanam. waaw yàlla baax na yàlla nañu yàlla suturaal rek may ñu ndam. jaajëf merci Kaaw nuyu naa la. nañ la. ñu gis ngay waaj combat combat dafa mel ni da nga koo foofu. bu baax. suñu déplacement la. ah. ah. gis andi public bu meer bu public bu bari ñu gis taxaw taxaw man ñu gis la nga ñëw ànd public bu bari waaj combat bi gis tuus bi am ambiance nooy waajee tey combat bi. loolu donc moo ñu war ci làmb ji promoteur bi desaluñ ko dara lu dul lii yab ñu lii donc lañ mën a wane ci làmb ji yàlla may ñu ndam. ok ci kanam. oh mbokk yi ñu doon defar une minute de silence bu géwél Boom X FM ñu koy ñaanal foofu mu jëm gënal ko fii mu jógee def na ci làmb lu ne moom bu géwél boo xoolee moo Fatima nekkoon nañu X FM ma nekkoon auditeur daan ko woo moom bu géwél yàlla na ko yàlla yërëm taxawee ko aljana làmba ñàkk. ma ne ko làmb sax a ñàkkati nag kaagu dema ngoog di jox confiance ay supporters am deux Giga ngi noonu làmb ngi nii mbër dali foora ngoog kaagu den deux Giga mbay yi ki wooñu fii arène national làmb ju neex <laughs> ku xef doo gis jël tey laay kaw gu maa ngi nuy jaak boom parcelle jaak ci may jaak nuyu naa la doomu kaw gurne abit baa ngi wax ñoom Deux Giga na taxaw làmb ju gaaw ma leen caméra bu baax Kaw Goundé Deux Giga Deux Giga xool boo xaw a sut Kaw Goundé Deux xam-xam bu père Birame Ndiaye Kaw Goundé écurie Dalifort arbitre bi sifflé na Kaw Gourdin leen jàkkaar lool Deux Giga mbokk yi wañu woon ginnaaw grand combat bi fii ñoo ngi fii ci arène national Cheikh maa ngi sat maa ngi sat arbitre na Kaw Gourdin te le 12 janvier il est lamb ji <laughs> ndaw combat bu gaaw Kaw Gourdin dox ci kawam man su ko doon digal dem naan ko na tey kenn du 2 Giga xale boobu kenn du 2 Giga Kaw Gourdin ngi dox ci kawam Kaw Gourdin 2 Giga 2 Giga sàkku xam-xam bu Birame Ndiaye Kaw Gourdin dari ñoo ngi lewtoo ñoom ñaar Kakou Dé mbokk yi moo ñu wan ginnaaw Deux Giga moo jàkkaarloog ñun bu doon maay Kakou Dé du ma xeex ak ndax boo xool mbokki yi Deux Giga moo xaw a tuuti ñool ñu ne moo ëpp tuuti relose Kakou Dé nga dox ci kawam Kakou Dé Deux Giga gëm naa buñ jàppante <laughs> gëw ma làmb ji yàgg làmb ji gëw mu yàgg maa ngi nuyu sëñ Basiru ak jiili boobu mbax daat ñoo ngi foofu ci Iba Mar Diop association des promoteurs woo foofu teg 5 Kaw Gourdin 2 ñoo ngi jàppante loxo Olof Ndiaye di ko wax damante baaraam Kaw Gourdin mën na léegi waaye demul 2 Giga na waaye dalul. Kaw Gourdin 2 Giga Kaw Gourdin 2 Giga Kaw Gourdin ngi dox ci kawam Kaw Gourdin mbëb na léegi 2 Giga cokkaas na 2 Giga Kaw Gourdin Kaw Gourdin ngi angli door na ko léegi moom 2 Giga door ko léegi moom 2 Giga su doon ma Kaw Gourdin damay naan yoo ci tànk yi daw na jël ko li def daan ko daan wala daanu ko Kaw Gourdin 2 Giga plaqué ko léegi mu bañ ah ndaw làmb neex mbay yi ci taxabal bi xeex nañu ah Kaw Gourdin 2 Giga Kaw Gourdin 2 Giga jàppante nañu léegi Kaw Gourdin ko daw jël ko plaqué ko waaye 2 Giga daa bañ jàppante abi sufle waat na Kaw Gourdin dafa ndànk Kaw Gourdin dafa ndànk daw na jëlaat tànk ba fàqat na ko daan na ko daan na fer ñun ay ndaw lañ parcelle lañ dëkk nee naa la ñun daa am luñ soxla. daf leen ñëw. lañ nekk na naan rek yàlla yàlla non lu ma bu xeexee daanu bu bëree daanu bu neexee suñu borom ñu champion lañ bëgg a nekk non père baa leen